ñu fi jiital ci yan jumtukaay lañuy jaare ba man koo am te bëgg koo tuxale ci njàngaleem sëriñ bi ak ci jëfii ni Cheikh Abdoul Ahad euh, doo mën a ñàkk tàmbalee ci ne l'islam ci boppam mooy diine ju mat ju mat te am équilibre nga xam ne dafay nose dunduk nit ki ci àddina ak ci àllaxira neena na lul benn wàll ci fànn yi nga xam ne moom moo itteel nit ki ci fànn yépp kon nee nanul kenn nee nanul ñenn euh, bàyyi xel lool nag wala bàyyi loo leen xel lool ñoom nit ñoo ñuy dund ci kaw suuf ci lu leen di boole te wattandiku lu leen di tàqale soññi leen ci lu leen di jegeel te wattandiku lu leen di soreel ak doonte sax léeg-léeg bokkuñu wenn xeet bëkkuñu benn pas-pas ak yu mel noonu waaye daal euh, ñoom ñëpp ñoo bokk di ay nit sëñ mbaki Mbacke ña ngi na léegi askan dañuy bokk di dund ci barab am lu ñu bokk te la ñu bokk mënuñu koo séddoo ñuy xool nu ñu koy jàmmoo loolu di lu am solo su ko defee nag fii moom Euh, ñu dem bay gën a sori di wax nit rekk ndax baynal muslimin lañu wax ci diggante jullit yi kon tey moom dañuy wàññi tuuti ñun tënk bi mën a wax ne ñi ñuy wax yamatul rekk ci ñoo bokk di nit waaye ñoo bokk ab téere ñoo bokk ab yonent ñoo bokk pas-pas ñoo bokk sariya ñoo bokk xibla yeneen sallallahu alayhi wa sallam leeral ne suñ borom sax a jëkk leeral bi mu defee ci ñoom lépp ba noppi li mu séq ak ñëpp lenn la mooy di buur ñu di jaam ku ko gën a nangul yaa ko gënal yenn sallallahu alayhi wa sallam di ko firi ci xaddis ba ne arab gënul ajam ajam gënul arab ngëneel ci ragal yàlla la nekk euh, l'islam ku ciy xool ak booloo akuk bennoo day yomb gis lool soo delloo ci alquran dafay jàngale ne yonent yi bari na lool waaye yonent yépp li leen yàlla yónni lenn la Cheikh Mouhamadul Fadil jaar na ci ni ma ko waxee am na yu bari yoo xam ne dinañu ko wàññil dafa tollook rek doo mën a jël yëpp ndax kon wax ji du nosu waaye xam ngeen ne saraa lakum min ad-diini maa wassee bihi nuuhan ba wax ji jeex mooy li suñu borom tabaaraka wa taala yónni woon nuux yónni ko Ibrahima ak Moussa ak Isa moom laa la yónni yow Muhammad te loola mooy an aqimu diina wala tafarraqu sax leen ci diine ji tëbb leen taqalikoo kon ñooñu bi mu leen tuddee dañoo représenté yonent yépp risaala bi benn la li yàlla yónnee lenn la kon nag kenn bu yónnee lenn kon ñam ko yónnee war na ñoo xam ne ñenn lañu moo tax lislaam waral jullit yi ñu boole seen bopp euh, wala ñu sàmm seenuk booloo ndax Cheikh Abdoul Ahad mii di borom bis bi ñu ñuy waajal bisam yàlla na suñu borom sax di dolli ay leeram euh, suñu borom daf ko mayoon am njàngaleem daf doon leer daf ne moom innamal muminuuna ixwatun de moom suñu borooma faslihu bayna axawaykum nag mooy ñun waaye innamal muminuuna ixwat moom dafa mel ni mbooloo ni seen yoon nekku ci luñ fekk yàlla def ko la ana ñoom lu ciy seen wàll fa aslihu bayna axawaykum fexe leen ba boole gi leen yàlla boole ngeen sàmm ko te rafetal ko te bañ a tàqale seen bopp kon yàlla mi bind nit ñi dafa leen a boole e, boo delloo ci lislaam tomb yi ci gën a rëy soo koy jàngat danga dem ba mujj nga ne ndax du tax sax yàlla dafa bëgg nit ñi bennoo rekk ba tax mu sant ko su fekkee leneen am na ca wàll it bennoo am na ca wàll bu wér boo dikkee ci turux suufiye yi tamit taxawaay boobu la ciy am dafay wax ni ñi ñu fi xam ñuy ay mag liggéey ci tasawuf liggéey yu am solo moom bu fekkente ne ab tariixa la yor loolu beneen débat waaye da leen di wormaal jox leen cër am ca sax ñu mu jaar ci ñoom ñañ xamul ne jaar na ci ñoom mu nangu leen jox leen cër ba mu leen war a jox masaa masaayix yi sayidina al jilaani wa saasali maa tijaani ba wax yooye di jeex jullit bi tënkuwul sax ci ab ci tariqa suufiya yit mu yëkk wala ci biir ñi tënku ci ba tey ci jëmmam ji mu yëkk la mu bokk ak ñooña def ñëpp ñuy ay bokkam almuminuuna ixwatun wal muminaati lii axawaat wa ayaati xasanaat moom daal nee na ku gëm yàlla rek ku gëm yàlla ak foo ko gëmee noo ko gëmee te gëm ga mbokkam nga bokkoo na la jàpp na la ubbil na la it buntam loolu mu nekkit loolu la digle ci tënk yu gàtt ndax waxtu waa ngay sori lool loolu la digle ku ca dellu ca masalik fa kullu wirdin yuridul murida ba wax jooje jeex dafay wax murid yi ne keneen ku ngeen fi gis tamu topp aw yoon te jaar ca ndigal ya ko kooka sant tigi kookaa nga ca yoon wa ndax ñooñu fi ñëwoon tey woote di digle ca yoon wa lañ jaar ñoom ñëpp ci ak njub lañuy woote ci jàmm la ñuy jëme nit ñi bay wax ne sax bu ngeen gisee seen meneen moroomum juliit moo xam ne soobuwul ci yoonu tasawuf comme ni ngeen ci sooboo waaye ab juliit la na ngeen ko bëgg ngir la mu gëm yàlla wax bi bil muumina lil imaan yi ak bu leen bañ mukk ku gëm yàlla wala tuxaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa eh, kon tolérance am sëñ bi tudd na ko léegi foofu sax da nga dul ak woyefam fi xam-xamam toll ak niwoom ak lu mu bëgg mën koo def waaye kon xëy na ma jël baatu modestie modestem woyefaayam dafay tax danaan tawaalifa saadaat yi ujaddidu naasiha nee na su ngeen gisee may bind gaa yu baax yi fi jaaroon la bindoon comme bind dafa xaw a doy waar léeg su nit bindee te jamono ja yàgg jamono dana am lu ci xaw a soppiku ka doon bind ay aadaam su bokkul ak aada yi fii nekk bokkuñuy barab loolu mën na tax am élément yu ca tàbbi yoo xam ne du dëppoog fii loolu moo tax lañ dajale woon ci ay xam-xam ma jël ko rek di ko bindat tawaalifa saadaati ujaddidu naasiha li wajhi lasi ahla ami wa marqami kon gis nga googu nooy ak googu yaatal ak googu xajoo eh, loolu nag dafa cee yare woon ñi mu yaroon doon ko dund Cheikh Abdul Ahad jëmmal ko lool jëmmal ko mooy bàyyi xel bu baax fii ko yàlla tegoon mu nekk ci kanamu mbooloo mi xam ne am na ñeneen ñu nekk feneen te ñoo bokk réew mi ñoo bokk diine ji te ay mbir a ngi gaar mu teel koo xam di ca addu addu wiin yoo xam ne eh, waxtu rekk jamono da koy soxla ca yeeteem bu leer ba te muy lu ko ñor mu wax ko waxaat ko ci ibaada yi ngeen ko xamee ci ne wane ne jullit yépp benn lañu diw murit la diw xaadir la diw tijaan la mi ngi mel ne diw dafa ñuul diw dafa xees diw dafa xeereer ñett ñu bokk ndeeg bàyyi benn biir a leen jur koo xam ne loolu fekkoon na la fi ba nga koy wax nga xamoon circonstance ya da nga xam ne wax jooja fay ak daay la woon ba lu ñoroon xomm la ba mu koy wax te dafa dafa wéy di ñor dee si ko soxla dafa wéy loolu dafa wéy dee si ko soxla wares koo xam waaye yemutoon ci loolu daf ko doon jëfe daf ko doon jëfe ndax euh, dafa dafa bokk ci liy waral bennoo rawatina diggante ku jiite ak ñamu jiite dafa am élément boo xam ne tey jamono indi na ko tudd ko wala ay élément ñu koy wax transparence ak bon gouvernance ku ne xam na ne transparence li ngay def leer nañ ñi nga ne ci seen kanam xam li ngay doxe day indi xel mu dal féex ak jàmm ci diggante ku jiitu ak ñamu jiite loolu buñ ciy fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad lu baree bari la ñeme woon diisoo diisoo eh, bokk na ci yooyu ku ca fàttaliku ci ndimmal yi nga xam ne état dina koy joxe ci aw xew am na yuñ fi mas a indi ci màggal bañ ko séddalee ba mu àgg na mu ko loo daf koo def lépp benn list ko jiite délégation ba ba mu ñëwee mu jotal ko ca cant waaye ca jotal cant ga mu wax ko lañ fi joxe nam toll waxaale ko it nañ ko séddalee ba mu noppee ne ko jébbal ko kayit wa loola andi lu baree bari mooy état mi joxe woon xam na ne liñ joxe woon joxeel nañ ko ko jàll na waaye it am la lu ca làq woon mbooloo mi ñu joxoon te booba wax dëgg lañ leen joxoon tuuti ba lekk léeg da nga gis koo xam ne doon na jaaxle xam na ne ndekete kat man liñ ma jox lool laa ci yeyoo ki kiñ jox lañ joxut lu bari waaye joxe na kon gis nga transparence boobu ni muy indee jàmm xëy na am na yeneen éléments yu ca dolliku mooy nag bu ëllëgee état xam ne communauté bii muy jox wute na nangam am yooyu yeneen mbir la ca woon. du yem ci yemul ci lu mel noonu ci doxaliinam ku ne xam na ne yoonu murit ni ñu yilife kilifteen gi day mat sëkk su ko kilifa gi jëlee ba mu jeexit dara du ca dikk waaye moom. Euh, ngir ne ñépp lépp a ci bokk na mu ko waxe woon ci benn woote bala ma agsi woon ci li may jublu dafa mel ni mas naa am woote bu mu doon woote bëggoon a dajale yoon wi ba ci diine ji ci waxtaan ba yàlla dogalee waxtu wa jot te fekk Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk ci yàlla na suñu borom dolli ay leeram ci yëngutu yi mu daan defal l'islam ba noppi moom it jàpp ne fu sëñ Abdou Lahad nekk njaboot sëñ Tuubaa gi ne fi moom jarut muy dagg ay soxlaam ndax mooy ñoom ñooy moom looloo tax wàññikuwul ba ko sëñ Abdou Lahad yëgee fomm ko euh, wax ne ab aw yoon su ko ñett ne yilif ci bis luñ cay def dañ koy yëgoo xam ngeen li mu bëgg a wax waxaat ne aw yoon ku ci ëppalee wut lu dut mag ko loo cay def da war a yëgoog moom ñaar yooyu yëpp lu ci ne wax na ko aw yoon ku ci ëpp léewut nit lu dut mag ko loo cay def dalaa war a yëkk ab dëkk su ko ñett ne yilif ci bis ku bokk ca ñooña luñ cay def da nga koo war a yëkk kon gis nga ni mu ubbile ña mu ko sëqal ak ni mu yaatale ak ni mu bennale waaye tamit jàmm des koy liggéey ak mbooloo des koy bàyyi xel gis ngeen bi mu defee tere yi mu defoon fii ci dëkk bi te lool di tere yi lislaam te naar bi woon ci Mbakke du sax ab sénégalais ci cosaan niñ ko mën a xamee du woonub jullit teg ca waaye tolérance bi ñuy doon wax su ne woon cell képp murit yi mën nañ koo faagaagal tey dara ci ci ci ci ci ci ci moom dara du ca dikk atta sax turam mën nañ ko caa bañ a tudd ndax mën nañ ne diglewu ko waaye dafa ne bu ko kenn tudd bu ko kenn laal waaye nag nañ maandu ci moom la muy jaay bu ko kenn jënd barke mën na caa bañ a wàcc embargo nag wax dëgg yàlla sëñ bi wax na ko léegi bu sa intere teewee nag euh, da da nga xajoo waaye doo bàyyi ñu jaar sa kaw ku ne gis na woowu rafetalin dëkk bii am na pal gum fi bëggoon a joxe moom Cheikh Abdoul Ahad junj naa ko léegi su ñëpp xëyoon suba dégg ko ca rajo ba mu wax ne teg nañ fi diw kenn du ca teg baat waaye daa wooyo ñi mu ko séqal ci ay rakk ak i doom yu mag waxtaan ak ñoom ci pal gi bëgg ci dëkk bi ak kooka na muy mel bañ demee ab diir am ku dellusi ne ko gis naa ku mel noonu yi nga doon wax wax ko ko mu jàppaat bis waat ñu ñëw ñim woo woon ñëw muy rakk yi ak doom yu mag yi e, kooka ñëw mu tàmbalee wax ji ca kooka ne ko kat soo gisee ma woo ñii woo la manoon na maa xëy teg fi waaye damaa bëgg nga xam ne maak ñoom ñoo yem ci yow ñoo ñoo séq dëkk bi loolu rekk laa ci jublu waxanteeg moom nam waxanteeg moom nag ci nit day juum soo juumee benn yoon danañu la baal su ñaareelee danañu la avertise su ñettee loo ñàkk yaa ko xañ sa bopp loolu defe naa gouvernant yi waroon nañ koo jàng ci bu ñuy fal euh, kon ak euh, yaatalam ak taxawaay boo xam ne dafay tax jullit yi nekk benn gannaaw boo xamee ne dafa mel na ñu bari dañuy jàpp ne su xeet doon am dañuy defe ne daf leen a tiim mu wàcc far ba mel ne daf leen di yootu mu wàcc ba mel ne daf leen di yootu kon ku amoon dundam gépp dundam gépp daf koo defoon ngir bennoo googu mën a sax nit ñi mën a am jàmm léeg-léeg day dem ba day xañ boppam ay intérêt ngir lan mën a sàmmal nit ñi seen jàmm jooju mën a sàmmal nit ñi seen bennoo googu loolu amoon nañ ci éléments yu bari waaye nuru na ne waxtu wi euh, du ko maye waxalaa kulli xaal euh, jëmba ngi noonu joo xam ne déggoon na bu baax njàngaleem lislaam ci ne jullit yépp benn lañu euh, ñoo bokk lépp sëriñ bi it ni mu ko jëmmale woon moom misaal muy dox la ci woon moom misaal muy dox la ci woon yëmutoon ci loolu defoon na kaaraange ba nga xam ne ku nekk ci ronam da nga wattandiku tooñ ni ko kenn ci mbokk yi doon waxee léegi ndax fu ñuy tooñee it jàmm du fa mën a am bennoo du fa mën a am euh, kon bu jamono tolloo fii ci xët-xët ak ñàkk xajonte kenn ku nekk di xëcc ci ab ruqam loolu dematul sax ba ci biir diine ji jëm ci diine ji waaye lekk-lekk ci biir yoon wi sax dangay gis ak ëppalanteeg ak nangam bu ñu fàttaliku waatee njàngaleem lislaam moomu waaye fàttaliku jëflanteeg Cheikh Abdul Ahad